salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Thiès gaay prestige ñëwati na ci lu bees ñu naan ko bët set bët set nag boo leen ko déggee mooy ngeen yeewu gis seen mburu muy croissant wala goûter café meew muy seen préférence li nga xamante ni moo leen neex loolu yëpp nag ñu fas yéene ko ndékkeendoo fii ci suñu plateau bët set ñu ciy waxtaanee actualité Thiès muy ci wàllum sport culture économique politique muy santé bien-être lépp loo xam ne nii loolu yëpp nag fii lay xewee ci suñu plateau Webzem ci Prestige TV ngeen di ci ànd ak seen présentatrice Coumba Ba ça sera pour très bientôt fii ci seen chaîne Prestige TV à très bientôt.